Univers Info ñu amaat mbégte ak contentement toujours bi wëri ndaanaan yi fépp fu ñu nekk ci réew mi ak bitim réew toog ak ñoom fas yéene waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni mooy wàllum actualité tey nag ñu toog ak koo xamante ni c'est un def lu nekk ci làmb nekk une voix autorisée muy euh, Khadim Ndiaye euh, le grand champion de Thiaroye ñu fekk ko nag ci fiefam naturellement parce que yéenay waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum làmb ndax démb gis nañ euh, ki nga xamante ni moom mooy Siteu ak Papa Sow seen face to face te bokk fi nga xamante ni moom mooy Thiaroye waaye bala ñoo sori rek ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen ñu soog di tàmbali li nga xamante ni mooy waxtaan bi champion ñu ngi lay xaar. waaw jërëjëf Gallo maa ngi lay fay. Mhm. di nuyu mhm. di lu seen liggéey bu rafet bu ngeen def mhm. à ci médias yi ak ci senegal li ngeen fi def daal di ñëpp rafetlu nañ mhm. di nuyu liggéey bu baax mhm. sama xarit sama doomu ndey ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi sant sëñ Muntaxa Xaadimu Rasuul di sant sëñ Moodu Abib Mbàkke di xalifa Daaru Rahmaan di sant njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi yëpp sëñ Cheikh Mbàkke borom Daaru yàlla yàlla yokk leeram taas ci barkeem di ma jaar ni Pape moo fi jaar lii ma sol nii. Mhm. di ko nuyu muy taalibe Cheikh na Cheikh Sadou. Mhm. ak Matar Ba mi nga xamante ni. Mhm. defu fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw. Sénégal gépp di ko jooylu. dëgg la yal na la yàlla defal jàmm Matar Ba. dëgg la wax ni àdduna jeexagul. di la déglu nag dalu ci say question dëgg la macha allah nuyoo bi am na solo ñu euh, tàmbalee waxtaan bi rek comme ni ma ko waxee sànq sama biir kàddu euh, ci li nga xamante ni moom mooy feesu fees bi ñu dundu dem ci diggante Siteu ak Papa Sow. Euh, face to fees bi d'abord yow ban jàngat nga am par rapport ak euh, ñaari mbër yi seen sortie ak seen ay déclaration waaw di féliciter promoteur bi mm-hmm. ndax euh, promoteur bi mm-hmm. day nit ku baax mm-hmm. muy doomu père ba muy Mansour papam nekk ku baax muy père ba Pape Abdou Fall moo ma présenté père ba d'accord xamante woon naag père ba mais ci jour combat Siteu Papa Sow bu njëkk bi bi Pape Abdou Fall tegoon ci laa gën a xamanteeg père ba hmm. jour boobu laay xam kan mooy père ba hmm. ci laa ko jàpp ba léegi hmm. doomam ñëw di def lu rafet dama ci doon rafetlu rek mooy bi mu waree def open presse bi préfet di ko renvoyé di ko renvoyé naan fii naan nii yooyu daal laa xam ne rafetlu ma ñu ngi wax daal ni nit bu fekkee dafa jël xaalisam investir ci dañ ko jàppale encouragé ko ndax xale la ku na xam ne ni Mansour ñoom ñëw dañu ñëw pour dundal làmb ñëwuñu pour dundal làmb mais dañu ñëw pour dundal làmb mhm. xam nga mhm. waaye mais open presse bi nag démb li ma ci jàngat ku gis mhm. ñaari mbër yi xam ni soxlante nañ dëgg la ndax Papa Sow dégg nga nee na su sañoon day xeex ak Siteu xam nga nee su sañoon tey jii day xeex ak Siteu xam na ñu ñun tamit euh, poulain bu ñu yor muy Siteu ku na xam na ni Caaroy la bokk Caaroy la saar benn la Diamaguène Caaroy benn la dëgg la xam nga Mhm. mais tey dañuy wax ci en tant que magu làmb dëgg la ku nekk li la arrangé Papa Sow mhm. Papa Sow bëreem ak Siteu mhm. rap Papa ak bëreem ak Siteu li koy arrangé mooy mu jege Siteu Papa jege Siteu jege Siteu loolu lay bëgg jete jege Siteu pour mën a xeex ak moom bu Siteu déclenché mu daw jël ko d'accord xam nga mais Siteu nekk na professionnel boo xamante ni loolu lépp dina ko jàng ndax ñoom ñaar ñëpp dégg nañ daal ci làmb ndax boo xoolee parcours bi ñu def mool tax ñoom ñaar ñu war leen a mën a boole. Mm. xam nga Siteu ndaanaan la ci bëre Papa Sow ndaanaan la ci bëre. di wax ne daal def nañ démb signature boo xamante ne ànd naag fair play mm. ànd naag yar ànd naag teggin maa ngi ñaan ñu continuer ko noonu ba jouru làmb ja mm-hmm. ah Siteu daan Papa Sow waa Thiaroye ñibbi ci jàmm. d' accord Siteu daan Thiaroye mhm. waaye ci open press bi dañoo gis ni euh, lu bari yoon dañ koy jàpp di ko renvoyé comme ni nga ko waxee sànq. Mhm. mu obligé yóbbu ko ci biir ville bi maanaam côté terrain ngelaw. Mhm. pour mën fa def open press bu mucc ay heureusement que amul benn euh, effet secondaire boo xamante ni yàq na lamb wala dañ koy dañ koy jaare di yàq lamb. Euh, lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum lamb muy waa CNG. parce que jàpp ma ni. làmb ju toll noonu war nañ ko di ko tëgg di di organiser ay open press muy échec ci ay mbirum sécurité ak yu ni mel. waaw xam nga loolu tamit il faut ñu wax ci waxtaan ci ak CNG ndax CNG. Mhm. day faral di def kuy mhm. kuy def open press rek. wala mhm. dara. dafay yebal ay membre CNG. pour maanaam dérangement bu fa amee war dara boo amee rek. dëgg la CNG mën ci dugal seen loxo. dëgg la loolu yëpp tamit il faut bi nga xamante ni mooy promoteur bi. tamit jël ay matukaayam. indi ay pour maanaam xam nga dina am ñoo xamante ni. bu gàmmu amee day am ñuy gàmmu si ñuy raas dem uhuh. xam nga ñooñu nag man boo xamul sax da nga naan moom mbër ñoom mbër mi ñoo ànd te fekk ana mbër mi sax xamul leen uhuh. xam nga ndax mbër yaakaar naa doo am sa combat uhuh. tal sa combat pour daan sa adversaire pare di ay nit naan leen dem leen yàq loolu kenn du ko def nga kon loolu tamit euh, li ma ciy rafet li ma ciy ñàkk rafetlu rek mooy boo ëllëgee ñu teel a jël seen i matukaay ndax xam naa ni promoteur bi moom wax dëgg yàlla jël na ay matukaayam boo xoolee amul benn sponsor bu ko encadré ci ci ci manifestation yi mu def xam nga ñu ngi wax ne sponsor yi tamit nañ dem wuyu si ko ndax xale la te tëgg na combat boo xamante ni combat gënu ko rëy Siteu Papa Sow gennu tàkkusaan mhm. bëri woon nañ mu échec tey ñu fexe boolewaat leen xam nga mhm. kon yaakaar naa ni combat boobu mhm. ñoom ñaar ñëpp a xiifante te gis nga Siteu bi mu jógee ci combat boobu bi mu toogee ci plateau Modou Mbaye dafa toog ne kontaanul ñëpp gis nañ ko ñu ne ko lu tax kontaana mun a kontaanuma xam nga ndax tey damaa bëggoon a jëflanteeg Papa Sow Papa Sow démb ci école dégg nga nee na bu sañee bu sañoon day jëflante expliqué ba pare doog koo daan. Mhm. kon yaakaar naa ni man li ma ciy gis rek mooy. Mhm. Mhm. ñi ngi naxante quoi ñoom ñaar. combat bi. demagul fenn mais ku ci nekk yaa ngi cenc sa morom mhm. maayen boo xamante ni da lay wóor ni mhm. li nga ko ci woo doo ko ci li mu lay li nga ko ci bëgg mu wuyu si la ci mhm. bëggoo loolu quoi am na leen loo bëgg mais dafa mel ni démb ñoom ñaar ñëpp dañoo jënd glace comme parce que combat bu njëkk bi ni mu amee woon engouement ak fukk ak ku nekk di napp sa morom amul woon démb ay jaayante ak raayante euh, pour yow loolu stratégie la wala la stratégie lamb lamb léeg-léeg nga gis mbër ñëw indi kanam gu lewet mhm. ba nga yaakaar ne sax daa ragal adversaire bi mhm. fekk lam dencal adversaire bi bu koy yàbbi woon <laughs> musibaam musibaam <laughs> te loolu lépp dafa feeñ ci si open bi te boo gisee li tax mu mu mu demee noonu sax dañ ko jàpp jàppaat ko renvoyé waat mhm. da ngay dem ba yaakaar ni sax du am moo tax loolu am mais ku xam Papa Sow xam ni am na mer moom dencal Siteu ku xool Siteu xam ni am na mer moom dencal Papa Sow ndax li tax ma mën la ko wax tey mooy Siteu bi xaritam boobu génnee àdduna. Mm. mu di ko tabaxal di tabaxal yaayam kër. Mm. Papa Sow da ko da ko ne sànc yi nga topp Siteu ne ko sànc yi ma la gënal yow. Mm. xam nga. kon déjà guerre psychologique mu ngi dugg foofu. Uh-huh. kon nga xam ni am na ci lu ñuy wotante rek ñoom ñaar ñëpp. ku ci woo sa morom ak sérieux. Mm-hmm. ci biir géew du du fa feeñ d' mais papa dañuy seetlu ne mhm. euh, doon na tooñ saa da ko wax ne entraîné woo sa mhm. tànk yi dara nekku ci mhm. euh, waaye démb bi ñu gisee Siteu gis nañ Siteu boo xamante ni euh, jëlaat na forme boo xamante ni c' est c' est extraordinaire est ce que jàpp nga ni am na physique bu doy entraînement bu doy pour mën a jàkkaarloog ki nga xamante ne moom mooy Papa Sow waaw non Siteu combat bi ni ma ko ci gisee ak ni mu ci duggee musuma ko gis mu duggee ko ci combat hmm. bi mu ci combat bi ak détermination bi mu ci wane dëgg yàlla musuma ko gis Siteu wane ko ci combat. Mhm. te Siteu doful ba gis mbooloo mi topp ci moom muy jël combat di ko fooye. Mhm. amatul erreur amatul droit def benn erreur ci côté boobu. Mhm. te Siteu da ne Papa Sow du ko téye. te buñ dee seet Papa Sow mbër mi gën a naqaree bëreel ci làmb ji mooy Papa Sow. xam nga ndax ndaamala goo xamante ni ndaama guddi guddee moom dès mën na bëri ba pare mën na xeex. te day jëli. xam nga te day jëli moo tax man la Siteu il faut mu yokk cere dollu ñeex. Mm-hmm. te yaakaar naa ne mi ngi ci. Mm-hmm. ndax masse bii ma gis. Mm-hmm. fii ak le 23 di nga gis Siteu yoraat beneen fii ak fii ak le bi ñëw di nga gis Siteu beneen xar kanam boo xamante ni duñ daawuñu ko gis ci Siteu quoi. d' accord ban stratégie la war a teg pour mën a daan Papa Sow ndax démb maa ngi ñuy fàttali ne Papa Sow. li mbër yi gën a naqaree bëreel ci euh, arène bi xeex naa ak ñoom ba ñu reculer. ba Siteu ci Balla Gaye ak ñoomin seen. ay Lac 2. Euh, mhm. ban stratégie la Siteu war a mën a teg ba mën a euh, daan ki nga xamante ne moom mooy euh, Papa Sow. non Siteu ni mu mën a daane Papa Sow bëri ndax Siteu moo prolonge Siteu moo prolonge am na nu muy jouer ak Papa Sow rek moom sita am na nu muy jouer ak Papa Sow ci benn arrêt rek boo ko sànnee dina war a xam li Papa Sow war war a indi. Hmm. te yaakaar naa ni loolu ñun itam ñun itam ay baayam lañ. Hmm. te dinañ ko am luñ ko baaxee ndax am nañ expérience tuuti. Hmm. ndax Papa Sow tamit loo ko bañ bañ di nga xam ne c'est un grand champion. Mhm. te dafa bari écurie mhm. te bi bëri écurie léegi. Mhm. defe naa bi mooy premier combat su ma juumul wala combat ak Ama Baldé. effectivement xam nga mais kon nag am na lu bëri lu koy xaar ci làmb jooju moom Siteu. xam nga danger bi nag nekkul ci Siteu nekkul ci Papa Sow. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk war nga mën a xam làmb ji après làmb ji lu mu lay jural. soit nga am ci ndam soit nga am ci défaite après fan la la war a yóbbu fan la la war a mën a cadré. ndax làmb ji léegi. day toll foo xamante ne dafa interdit loo gën a daan gën a yéeg te Siteu nag foofu la toll mm. ndax mbooloo mi muy détourné di ko indi mm-hmm. yaakaar naa ni ci yàlla loolu lu ko yàlla jagleel la mm-hmm. gisuma beneen beneen beneen lit beneen mbër mm-hmm. buy indi lu mel noonu wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg xale la am na mbooloo te yaakaar naa ni fonk na mbooloom fonk goo xamante ni du ñëw di caaxaane combat quoi d'accord mais ci ci bëre bi moom dafa war a indi xeex kase wala dafa war a bëre kase ban stratégie la war a teg boo xamante ni lii nii bu ko indee dina la leer ni. Mhm. du du am benn risque pour mën a euh, jàkkaarloog Papa Sow. man sama conseil ak Siteu. Mhm. mooy nga wàcc toog say tànk ba tolloog Papa. daw jeexaat ak moom. Mhm. su ne nga jiwaat loog moom. loolu mooy lamb ci. d'accord c'est un champion c'est un champion qui parle. dégg ngeen stratégie bi nga xamante ni moom la jox. doomam te loolu te loolu Siteu da koy entraîner. suy marche arrière suy soow yëpp. demi flexion boobu da ko ci da ko ciy boole. Mhm. su arbitre fër mu toog ba tolloog Papa Sow. Hmm. xam nga dañuy tolloo. waaw bu ñëwee kurtum bu Papa Sow tàllale bu Siteu tàllale loxo Siteu mooy njëkk a dal. ndax moo prolonge. xam nga te Papa day bëgg a dóor boobaa nag loolu yëpp dañ ko mën a cadré moo tax yaakaar naa ni combat bi nekkul luy jaaxal Siteu quoi. Mhm. ci expérience bi ma gis ak mhm. Siteu ni muy développé léegi. ci xel ak ci xalaat. xam nga ba ci ba ci ba ci ba ci dimbalewaate sax. xam nga mhm. dugal na ci boppam ci cadre boobu quoi kon dañ koy mhm. ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla mhm. xale la boo xamante ni mi ngi def ay social yoo xamante ni léeg-léeg booy ñëwoon mu benn vidéo na ma père xoolal sa doom ji def mais loolu dama ciy kontaan yeneen mbëri yàlla nañ ko gis ba di ba di ci roy ndax dëkk ba nga dëkk nga di ci jàppale waate wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla gën a jàppale daal loolu laa koy ñaanal amit yàlla na ko yàlla gën a jàppale c'est important parce que mbër la boo xamante ni ma ngi wane la bon exemple mhm. parce que dafa bëri ay xale yu bëri yoo xam dañ ko bëgg di ko topp mhm. te exemple muy wane war nañ ko mën a gën a jàppale ñu leen ñaanal yàlla ñuy egg ci bés boobu mhm. te it ñu wane li nga xamante ni moom mooy la bon exemple ndax seen lamb ju njëkk ja gis ngeen ni mu demee mhm. donc cette fois-ci il faut que ngeen wane ni carrément vous êtes des champions et man bés ngeen ko def ba mu normal mhm. ñuy ñaan yàlla ñu egg si jàmm et que le meilleur gagne mhm. mais père dañuy ñëw ci beneen euh, sujet muy euh, li nga xamante ni moom mooy actualité muy mbirum Khaliphone Sall ak xale bi ñuy wax Adja Thiaré je pense que information boobu jotoon nga ko bi coow li jigéen nag xali euh, nañ ko ba daal di koy téye jamono ji ma ngi ci loxoy yoon cas boobu noonu lan nga ci mën a wax waaw di di di wax ne rafetlu ma ko. xam nga mhm. léegi réew mi. Mhm. dafa commencé. Mhm. valeur yi ñu am dafa commencé barki dem rek maa ngi ci waxtaan ak Pape Abdou Fall. day sànn sama xarit. Euh, réew mi dafa commencé ñàkk ay valeur suñ demee ba ji góor jàpp jigéen. di ko minimiser di ko def yenn yi. xam nga. def ci yenn yoo xamante ni. koo xamante ni yow. yaa taxawoon am nit koo xamante ni dañ ko jiiñ loolu. muy ku mel ni Ousmane Sonko nga taxaw wax ci moom lu mel ni géej hmm. ku ku dégg der sa nopp hmm. teguñ ci ay weer yow nga def tooxi doona boo xamante ni yow kee sax lañ koy wax yow dangaa ngaa jéggati dañ ne da ngaa violé ba pare dóor xam nga ki hmm. waruñu koon a bàyyi sax muy taxaw ci média yi sax wala fen di wax xam nga nañ waxante dëgg réew mi dafa toll réew moo xamante man dama naw sama justice naw naw naw sama justice ba mhm. pare naw sama am du loi yi mhm. xam nga mhm. ndax euh, dama leen a respecté jox leen cër ñu ngi def seen liggéey macha allah dëgg la xam nga mais làq bi làq fee ku ci deful lu dul dëgg dañ laa war a teg ci yoon Xaadim Njaay lu mu am tur tur tur bu deful lu dul dëgg dañ ko war a cadré na ko lii nga def du yoon yoon def ci moom ndax loolu bu ñu ko doon def rek réew mi jaar yoon ku mel ni ay genre Khalifa Sall yooyu man du ma leen déglu xam nga ay Moran moo gét man ñooñu du ma leen déglu mhm. du ma leen kii ndax du ñu ay référence mhm. ñoo xamante ne ay saaga mhm. ay wax lu ñaaw xam nga wax lu ñaaw def lu ñaaw yooyu suñu réew mi mérité wul loolu mérite nañu waxante dëgg rek réew mi mérité wul loolu ñëpp a ko mën yow mi mën nga ko DJ mën na ko mais xoolal yéen ay morom ngeen ak ñooñu mais da ngeen a civilisé di liggéey di xool luy développé seen réew ngeen def ko xam nga xam nga lu gën a li li gën a yàq réew mi ñàkk xam di wax Mhm. réew mi yàqu na ba pare ñàkk xam ba pare di wax. Mhm. ba pare iñaan ju ànd ak pexe. Mhm. nan nga ciy mucce fan ngay mucce iñaan ju ànd iñaan gu ànd ak pexe. tey mën ngay ànd ak tey DJ Yves ah. ne DJ Yves dama la bëgg dama la bëgg di ko wan ni dama la bëgg. wala nga ni jalo ah wan ko ba xam nga tey DJ Yves su ma dajee ak moom fii. muy génn ci média ma daw kott ko ne ko oh fan si nga day kontaan. mais dëgg la mais li ci sa biir xol is ah, mu mel.